bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fiatilum wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ mbàkki si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara ñun ko waxe woon diggante màggal ak gàmm nu doxale fi waxtaan wu jëm ci jikko te xam ni jikko sallallahu alayhi wa nee na mottali ko moo ko taxoon na ñëw mottali la ci baax li ca baax makaarimul axlaax la ñëwoon pour mottali ko ya ca des nag su mottalee makaarimul axlaax yooyu jël seeni bagage dem ndax dafa am yoo xam ne duñ bokk nekk ci néeg bi sunu mbokkum daara Oustaz Ibrahima Xaliloo ca ngaabu mooy wax ne kuy wër ab néeg boo luyee ci set ci Dakar boo dikkee fekk nit ca néeg ba loo ko jàpp-jàpp ku ñàkk solo dañ la wax ne néeg bi dafa occupé nee na néeg bi ngay mën a jël mooy néeg boo xam ne dangaa ñëw fekk caabi yaa ngi ci loxol boroom kenn occupé wu ko nga jël ñu ne ko loo bëgg a foofu mu ne sunu borom subhanahu wa taala sunu xol yi bu ñëwee xol bi comme ca fekk rek day wax ne comme di occupé na ko naa dem seeti beneen xol bu kenn occupé wut mu ne ko ndax wax njàngale mu leer sas <laughs> Ibrahima Xalilu yal na ko yàlla yokk nu nekkoon ci bind boobu mu wax leen ne ñoo ngi ciy ànd ak Moustapha Mourad Subhi Muhammad ustaas la al ustaas al musharik bi kulliyati daawa al islamiya waaw moom lañ ciy àndal maanaam moo def bahs bi ñu tolloon ci tomb yu am solo ba ci jiitu woon mooy waxtaan ci ngënee li jikko yu rafet li ci nit mën a ame ñu jóge woon ci jikko yi wala ba ngënee li jikko yu rafet tegoon ca jikko yu ñaaw ak li mën a yàqe ñu tegoon ca relation bi am diggante jikko ak aqida waaye diggante jikko ak ibaada ibaada mooy jaamu yàlla gi aqida mooy ngëm-ngëm gi nu war a ñëw tey incha ci xusnul axlaaq sababun fi tahaaratil xulub jikko yu rafet day fóot xol léeg-léeg nga gis nit am feebar boo xam ne docteur mënu koo gis nga dem Albert Royer fekk ko fu ñoom soxna nday faatu Diallo Moussa Gueye ak ñi mel ni ñoom analise bu nu ñu def ko gisuñu dara te waa ji il est malade waaw ñu bëgg ko seetewoo il est malade ñu yóbbu ko institut Pasteur ci ñoom madame jàllo Aramata il est malade waaye gisuñu dara ñu yóbbu ko université fag médecine ñu def analyse gis ñu dara waaye mën nañ ko yóbbu sax ba Maroc wala bitim réew fuñ ci mën di dem il malaat malade ci gisuñu dara mais moom lu xew mooy jikko yu baaxut yi moo xumaa xolam bi te jikko yu baaxut li muy def ci xol ci xumaag moo raw cancer moo raw cancer ndax bu dee cancer docteur yi mën nañ koo gis cancer bii nag docteur yi mënuñu ko gis mooy canceru jikko yu baaxut Oustaz Modou Fall <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér nee na léeg-léeg da nga si nit ko xam ne ki day day jeex rek di jeex rek kanam gi lëndëm këruus ku ne naan lu ko dal Oustaz Modou Fall dina maa xam li ko dal ñu ne ko lu ko dal mu ni añaan dong ak soxor mooy ronge xol bi ba mu nar a xëy faatu nii kon rafeti jikko day day day laabalab xol xol bi laab nga noppalu boo tëddee nelaw fi nit ñi tëll tëll ko fër-fëree ko xaroo ko def yëf yow sa yaram du ko yëg ndeysaan mu ngoog kon jikkoy rafet day tax sab xol nooy yonent baa ngi wax ca bu ñu denk ci jàkk ji buy julli koo gis ay jikkoom rafet soo ne ko jëmal ci kanam mu jëm ci kanam boo ne ko dellu ginnaaw mu dellu ci ginnaaw waaye borom jikko yi nga xam ne rafetul kon de kon dellu ci ginnaaw wala jëmal sàpp mu defen da nga koo yeb abu darda radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu daf ko mës a wax benn bis a tuhibbu an yaliina qalbuk wa tudrika xaajatak waaw daf ne Abu Darda mu ne ko labbayka mu ne ko ndax bëgg nga sa xol bi nooy nga yërëm waaw di ñeewant mu ne ko bëgg naa ko de mu ne ko ndax bëgg nga sa aajo faju maanaam xol bu nooy beeg yooyu day tax say aajo faju ndax duutoo añaane kenn te ku añaanewul nit ñi nit ñi luñ la añaane ku leen bëgg ñu bëgg la wolof nee na waaw wolof nee na ko bëgg bëgg na la ndeysaan montre yu baax yu baax yépp ñoo bokk heure yi ci horloge yi ñuy defar mu ne ko bëgg naa ko de mu ne ko soo bëggee loolu nii ngay def irhamil yatim na say jikko rafet ba jirim boo gis yërëm ko ndax jirim mooy xale boo xam ne bii avant muy xam ak xàmmee papaam dafa gaañu di san papaam dafa gaañu ñu toll ci dugg école yaay mënu ko inscrire mu soxla ay ay jumtukaayu école yaay mënu koo jënd te xale bi neex xel xale bi neexal bëgg jàng mais papaam nekk fi ndeysaan yaayam moo fi nekk waaw tabarkàlla laa xaytuha laytani ma kuntu alqaaha tamshi wa qad asqala al imlaaqu mamshaaha ndeysaan aswaabuha rathatun wa rijluha fiatun wa damcu tusrifuhu fi lqaddi aynaaha karrul jadidayni qad abla ibaataha wanshaqa asfaluha wanshaqa alaaha ndeysaan Oustaz Moustapha Sy bu Canal 4 moo nu ko doon jàngal ndeysaan ca sunu kuur ya mook Ablaye mook euh, Ablaye euh, Dukkure defe naa noonu la euh, xale bi papaam gaañu na yaayam mel nii shaayir bi na wax Maaruf Rusaafi ne dafa dëkk ci koñ bi génn këram rek jàkkaarloog benn meer nee na waaye mu ne kii su ma yëgoon duma ma jàkkaarloog moom ndax yërëm naa ko te mun mu ko dimbale ndeysaan ak bëri ci dëkk bi ñoo xam ne seen jëkkër dafa gaañu bàyyi leen ak ay doom waa koñ bi seetaan leen julli seetaan leen pénc mi seetaan leen ñun ñi ñun ñi nab na bi ci yi ñu nekk nii nit ñi defe ni jeexaluñ dara ku jaaxle seet si nu te yoruñu tus <laughs> waaw yoruñu tus suñu Cheikh nee na tiitoor doo nga fi nekk waaye yoruñu tus waaw mu ne suñu aéroport bi ñu ngi doon gaara <laughs> bu njëkk ba la dox comme gaara su Kotiari xam naa bii xëy na <laughs> bii moom xëy na moo tane gaara su Kotiari waaye nee bi ñu bu njëkk fii sëñ Cheikh na moo gaara su Kotiari xam naa ñi dem Tamba xam nañ gaara su Kotiari <laughs> kenn mësu koo gis rek ma nga ca kër wetu kër ñoom abi dem ak soxna Silla ndeysaan falaa daan dal bu ma saan dem Tamba ci sunu mbokk ma ndeysaan saar waaw kon mun a yërëmal jirim boo bëggee sa xol bi nooy ndeke kon cancer yooyu di dal nit ñi yërmande yërm jirim yi da koy faj ndax penc mi cancer yi bari na trop wax la ko tey canceru ween yi canceru kol yi ah canceru xol yi tabarkàll canceru bol euh, yi te lépp nag nit ñaa ko def ñëpp nit ñaa ko def waaw cancer ween yii fi mu nekk nii <laughs> ween woo xam ne doon nampal li la fi yàlla doon doye doo ko def il faut nga nëb yàlla bindalatoon jigéen ween pour toilette ak takk ay sitin déedéet ween yàlla daf ko bindaloon jigéen pour muy nampal mais comme nampalatuñu ci kay <laughs> waaw ma la ko tey waaw pexe yoo mën a du làmbal sa ween yeeg ndax am naw donj ak dana am donj dana am donj parce que li nga koy doy la defut nit ñi lëkkal nu witt yooyu ndeysaan yonent bi nee xol bu xol bu laab fi ko nit di amee mooy yërëm jirim irhamil yatim jirim jar na ñoo yërëm jar jirim du xëy ñàkk moo sa baay bu baax bi la jur ndeysaan ci xasida ak sunu mbokk ma si Ahmad Tijaani Gay rahmatullahi alayhi wa radi kon ku bëgg sa xol nooy doo am cancer <laughs> doo am cancer cancer de foie noonu la professeur yaakaar naa ne da nga yërëm jirim yi xol buy yërëm jirim feebari xol du ko du ko du ko du ko yeb kiy wax nii nag mooy ngën ji moom la yàlla xamal lu xamul kenn waaw waaw ci mbind maam Sëriñ Tuubaa ba tabibu ahli saqam yi tabibu ahli saqam yi ndeysaan ne woon téere ba wa xalili wa qablu kunta kon docteur bi mooy wax alayhi salaatu wasalaam di wax ci luy faj feebari xol yi mu ne yërëm jirim yërëm jirim day saafara xol waaw yërëm jirim day saafara xol kon soxore jirim da yàq xol jirim nag Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mu ne du xëy ñàkk moo sa baay bu baax bi la yor bi la yar wala bëgg bi la jur feeg yaa ngi am waa ju baax ju mat taxaw di la yar maanaam boo amee ko wóotu sa baay ca la sa baay doon def yaa ngi ak baay ba léegi day san yaa ngi ba léegi waaw kon nag na nekk nun ñépp bàyyi jirim yi ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba bu fekkee da bëgg sa xol bi wér wam raayal bopp jirim seet raayal bopp jirim hmm? tegal sa loxo ci boppam faj aajom yépp bu soxlay dàll jëndal ko bu soxlaay yére xottil ko ñu ne ko waaw mu ne ko wa at'imuhu min ta'amik jox ko ci li ngay lekk mu lekk mu yonent bi xanaa dangaa xam waa Dakar waaw waaw lu tax mu ne wa atimu daat ne min taamika mooy nit ñi léeg-léeg li ñuy lekk duñ ci saraxe la ñuy saraxe soxlawuñ koo lekk waaw Oustaz Tayib Socé nee na yàlla na yokk wér da dem ci kër seen ñi bëgg añ ñu ne dellool buntu kër gi ne ko kaaj tëj tiim seen ceebu jën waaw seen ceebu jën penda <laughs> pend mbay xam na naa pend ma la ca ca ca ndar tudd pend sant mbay moom it waaw professeur allemand la yàlla na ko yàlla yokk wér en tout cas daal ceebu pend mbay xam naa naa leen mës a ci histoire pend mu ndax euh, ndaw ku ndaay yàkkam ci nañ ko tabarkàlla moo xal ko lu tax mu tudd pend mbay lu tax ñuy tuddee ceeb yi ceebu pend mbay ala kulli xaal tëj sa buntu néeg lekk sa sa buntu kër lekk sa ceeb bu tàng lekk tabarkal ba desal xooñ xooñ ak ñaari doomi ndey yi nga xam ne ñooy des ci ndab li muy carotte ak nawe ndab lu ne muy des ñoom ñaar ñoo fay des carotte ak nawe yàlla na yàlla yërëm leen nga boole carotte yooyu ak nawe jeeg xooñ leeg ñoom seen yooyu sotti ci daal di génn ca mbedd ma ne taalibe am yàlla jox la sa soosa mu ne déedéet yàlla ceeb bu tàng bi la joxe ak xooñ leeg yooyu waaye maccaat yii ak yu ñàkk solo yi mu ne mun na ko yaa ko joxe lay wax na dëgg sati <laughs> sa nee na joxe yàlla jox la ceeb bu tàng nga joxe ceeb bu sedd bu ànd ak ay maccaat ak ba noppi taali bi am yàlla jox la tooñ nga yàlla moo tax suñu yaay ji Aïsa anha xamoon na lan mooy am yàlla jox la ndeysaan bu joxe bëgg a wax am yàlla jox la day tiit xeeb li muy joxe waaw ba far day parfum loxo bi ñu ne ko lu xew mu ne comme damay teg yàlla di nangu dama bëgg sama loxo bi yokk sama sama sama sama sama sarax bi waaye penc mi ay këy la ñuy saraxee hmm? dégg naa léegi ñu ngi commencé saraxe pont liibaru pont ak mbuusug mbuusug bisaab yàlla nu yàlla yërëm mu ne ko wa atimhu min taamika joxal jirim bi ci li ngay lekk mu ne ko soo ko defee yalin xalbuk wa tudrik xaajatak mu ne yii mooy tax sa xol bi nooy sa xol bi nooy sa aajo faju xam naa addis bi moom <laughs> kolle kolle mokkal na ko amintu Jóob Ali Imran kolle mokkal na ko hadis bii xawma fu mu ko jànge wala boog peut-être peut naturellement la waaye dal <laughs> waaw moom dal commission sociale foo mbooloo moom dem mooy jël commission sociale ma ne baax na mbokk yi ndekete ay feebar a ngi dal nit li ko dal li ko teg feebar yi soxor laa kañaan ak ñàkk yërëm jirim ak ñàkk a faj aajoy jirim ak ñàkk a jox jirim lum lekk baayam faatu na bàyyi ko fi moog yaayam yaayam mënagul dara waaw <laughs> cey wàjjule yaayam mënagul dara ndeysaan moo tax ñi yeex a takk ñaareel nañ ma baal léeg-léeg yu mel ni dal ci pinc bi ay jabar soo ko bëggee bari la da koy nef loolu la alxuraan jàngale boo ko defut xanaa toog fukki at ak juróom jàpp ñaari fukk door a ñaareel sa ñaareel bii li muy mos ci sa wërsëg du bari nga daal di retraité ay doomam waxi noppi toll ci CP1 ak tukki waaw fekkoon nag da ngaa <laughs> da nga koo nefoon bokk mos ci sa wërsëg wi seen yaay waxi noppi ndax yaa ngi ma ko bokk yal nañu yàlla dimbali alquran junj na ko waaw walahu duriyatun duafa ndeysaan kon jikko yu rafet jikko yu rafet lislaam bëgg na ko lu dul lislaam bëgg na ko jikko yu rafetay tax boo tasaaree diine diine tasaaroo ndax nit ñi ñoo lay ubbi seen xol yi jikko yu rafet a koy def di son mu ngoog jikko yu rafet mooy tax jullit yi fu ñu dëkk ku leen gis naw leen lu ñu nekk nga bëgg caa nekk fa inna al muslimina al awail indama staqaamu ala makarimi al axlaaq raqat lahum xulubul kaafirina fa daanu bi diinihim wa sallamu lahum biladahum loolu boo jàng ci démbi lislaam ci Sénégal murabitoon yi bi ñuy ñëw senegaal indi wuñ jaas wuñ fetal indiwuñ wuñ ngànnaay lu ñu indi woon mooy makaarimul axlaaq waaw ñoom waar a jaabeeg ñi mel ni ñoom njaajaan njaay ak ñi mel ni ñoom gis jikko yi nekk ci muraabituuna yii jóge Mauritanie ñëw fi di jaay xar waaye mën a gis nit xamoo ndeyam xamoo baayam joxu la identité nga mën koo lebalum xar bu déwénee nga ñëw ne ko njëgu xar ma lay jël si gars yi ne ñii ñoom lii lii la ñun koo lebalum xar wala koo lebal juróom fukk juróom benn fukk la lay fay ñu gis ñi yor jikko yi wóolu nit ñi waaw wóolu nit ñi bu julli jotee rek nu bàyyi lañ doon def ñu gis leen ñu raxas seen ay cër kàbbar jublu xibla di julli nit ñu commencé yéen lu xew ñu ñu ñu daawa leen daawa bu yomb te mooy woo ci diine ji moo tax ñun suñu indépendance ak sunu diine amu ci lu ngànnaay jóg mukk ndeysaan boo ko laajoon ndeysaan mbay sax jóob dëkkoon ca tëngéej jàll na ko yàlla yërëm waaw kon jikko yi bu rafetee bi julli yoroon jikko yi rafet yi réew mu mas a dem makaarimul axlaax tax waa réew mu ubbi leen seeni kër ubbi leen seeni néeg waaw jege leen ñeme leen jege leen ñeme leen commencé di leen topp ci diine ji ndax jikko ju rafet alayhi salaatu salaam luñ koy waxal ci yu mel noonu jikko yu rafet soxna sam jigéen jëm dëkkaloon te muy jël mbalit may tuuru këram dégg la ci mujjoon mu ne ko yow yàlla la yónni wala zilna nara miatil malayin min al muslimina fil hind wa indonesia wa Malaysia wa Pakistan wa Tajikistan wa Afghanistan wa xayruhum aslama aabaahum al awail wa salafuhum al gaamir li taassurihim bil axlaaqi al aaliya li yi ma la yimal yépp ni senegal dugge ci diini ji noonu rek lañ ci dugge jikkoy rafete tax gaa yi dugg ca ñi nga xam ne ñooy ñooy ñëw ca ñoom ba demee Inde la fa ne ci aw jullit jaasi duggalu ko fa ba demee Siin la fa ne ci ay jullit jaasi duggalu ko waaw Indonesia noonu Malaysia noonu pakistaan noonu jikkoy rafet yi gaa yi daan indi ci ñoom moo leen xiir ci ñu laaj leen li xew ñëw fekk si leen ca moo tax mbokk yi nit defari jikkoom ba nit fekk ko ci diine jim nekk am na solo lool waaw am na solo lool yiw ba ku la jege yiw yiw ba ku la jege xemmem ni nga mel mu ñee la ci ni nga nekkee daal lay jéem a roy ndeysaan ba niru la mbaa mu raw la tabarkàlla euh, abu abu hanifa an nu'man dafa dëkkoon ak benn majuus benn majuus wala dafa nekkoon ak benn majuus ila sijni ba abu anifa xamee loolu ba mu xamee loolu mu dem ziyaari ji ko ca ca kaso ba maanaam ab majuus la dëkkaloon majuus ba ñu tëj ko kaso abu xanifa an nu'man dem seeti ko mook moom ba jëlal ko avocat ba mu génn ba majuus bi gisee loolu daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu ko waral dëkk ak majuus jàpp ne yéen da ngeen a war a noonoo mu dugg mu dugg kaso nga jëlali ko avocat fay avocat ba yàgg moom plaidel ko ba mu génn mu génn ne ko yéen seen diine ji moom sawar naa ci dugg daal di tudd baat seede dugg ca mbokk yi waxtaan wi jeexut ak suñu koor yëkkatee bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës de ñu ànd ci jataay bii am lundi ak mardi di tàmbali 8h di jeex 10h jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii waaye ak suñu sponsor yi ak yi bëgg a ñëw yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste